tey jii fi nga xamante ne ay responsable mu Abdoulaye waaw ah d'accord ñaa ngi ci conférence de presse tey kat ñu ngi attaqué Sonko conférence de presse mag laa woote jeune Dakar yëpp laa woo waaw xool xool ko bu xool ko ànd ak bu news ok ok ça marche mon frère d'accord ça marche ok d'accord ki nga xamante ne ay responsable mu Abdoulaye waaw ah d'accord ñaa ngi ci conférence de presse tey que ñu ngi attaqué Sonko conférence de presse mag laa woote jeune Dakar yëpp laa woo waaw xool xool ko xool ko en direct bu news ok ok d'accord ça marche mon frère d'accord ça marche ok d'accord